ترى لك اسمه يباق يقول نكرم دم يعرجو شق سلمام آبا آه، يلاو ترى لك اسمه يباق أبو يقول نكرم دم يعرجو شق سلمام آبا آه، يلاو جبل وتحيا عندي ريدي لقبدا safaan ya jooy nañ ba ñuul kaayra mu yàllaw foofee la gis góor gu yor jigéen ju kumur ña koy sukkal naa ko kaay muy daw ba yàllaw jibrilu pis ko boo wijjee sa du raw dawal bu baax addinaak iblis a yàllaw mu romb ñaareel ba gis Isaa ibnu Maryam ak Yahya lesi ootiyel ukaama yàllaw keroog la gis aw jigéen ñuy mooy jaadu na ji ñi wet ci seen ween ya ñuy xandaalu yàllaw mu dellu gis foofa góor ñuy mooy jaadu na ji ñi wet ci seen geen ya ñuy xandaalu yàllaw moroom ba ànd taar ba yoo suba jóg raamal ko leer ya gandoog lin xar si yàllaw keroog la jëlaat bu yóbbu yàpp wu dem reere meddi mu kenn toggul fa yàllaaw xelaw la gis ab buy romb yàpp wu ñor dem reere meddi mu kenn toggul fa yàllaaw mu laaj ko jibril mu naa mooy gaaye denc jabar tey dox di wut lu xaraam gannaaw ga yàllaaw idris yonen ba daa dëkkee durus abadan ca suuf ñenal teel sa lañ feroo fa yàllaaw Idris yonan ba daa dëkk jus da badan ca sos janam keersa lañ féeroo fa yàllaw keroon la gisal kuréel buy wat ni xala badan muy lakk seeni butit ñu yuux fa yàllaw mu laaj ko Jibril mu naa mooy gaaya lekk riba tey fab alal ci jirim tey tooñ fa yàllaw Haaruna yaaban la yonnen man ko romb di wéy ci biir juróomeeli kiiraay foofa yàllaw keroog la gis ab kuréel bu yàpp seenu yaram ñuy siso seen tuñ ya ak seen gët ya yàllaw mu laaj ko jibril mu naa ah, mooy garbo ya jamutuñ tey rege joo ko luy faaru yàllaw moo sala si kallamal Mawla jaxaw nañu mbir daarob ga mang ca juróom mbeneel ba moo sele si kàllamal Mawla jaxaw nañu mbir daarob ga mang ca benar ya law kenn la gis fab yam ba xam ne ya di xelin lo kalau lagi la yang fab yam boo xam ne man ya di xelin lo wala mu laaj ko jibril mu naa mooy ndooy aljanaam ñol ak lem ak soow sun këm jëkkëray maam cerno toog ca juróom ñaareel ba yàllaw tolol la gis ay malaaka buur yu sàppe taxaw te ñoo sëgg ngir njool ma ka mu gis malaaka yi su jóot abadan te ñoo siggi ngir war maal ko yàllaw jibril na gaaya su jóotam siggi leen نتغول سقو ندير ور مع الفيلاو كلام لجوال ما كخدم قل لي فرقو دقل قل لي جام ملاك يا الله يا الله كلام لجوال ما كخدم قل لي فرقو دقل قل لي جام ملاك يا الله يا الله جبريل قل رسول الله بجو بغي لشجرة المنتهى جس يا الله يا الله muy xotti diile leer yay jolli ta daaras ak kursi yoog malakoo tilaahi ya naaw foofee la gis xalim ak buur yàlla muy bind kun di kerkeri bind xattey bir ya ya naaw buur yàlla di bis rasulullaay leer ga taxaw wéppéy bara ngir ga màggal nguur ga ya naaw yonen ba daal di nuyoo buur yàlla fay ko mu wéy mboolem malaaka ya sabaal foofa ya laaw jegee na buur kenn xalaat ka jëm te lii la ñu wax ci alquran nga yër wa naj mi yelaw jegee na buur kenn xalaat ka jëm te lii la ñu wax nga yër wa naj mi yelaw mooy xaaba qawsayni déglul ndem xamoo ko bu wér bur yàlla moo sopp yónnem woo ko yelaw keroo la fab sartul islaam yëpp ku jox mu yor ngir fonk yoon ñun ba ak xeetam wi yenaaw juróomi julli seen ab lim reen na ba mat juróom fukk ak naa fi lay ba Mustafa dellu see Muusa teral ko bu wér sargal ko laaj ko boroomam foofa yenaaw yónneen xibaar ko la xew ak lañ dogal ci ñoñam Muusaa digal ko ni dellul wàññi yàlla yow sa xeet wi kat xattanun boobeeb dogal abadanun te yàlla gat loo laaj xam loola yàlla yow muy dem del si ci Muusaa dox diggante ba far ay yooni yoon ba ñu wàññi julli yàlla yow juróomi julli yi foo am nga lu mat yoolab juróom fukki julli booba yàlla yow 不良了给呀路那飞，莫啥莫也可嘛飞，莫啥莫莫也没飞，莫罗没呀啦哦，不良了给呀路那飞，莫啥莫也可嘛飞。 mô ra mô mô dự ni phây mô lô ni à la phây mô sơ tra và mô mà phây mi mô sơ tra và lô ra phây gana và ya la phây sơ ba ya la فالمصطفى ما مضى بي مصطفى الورثة جمعوا بيالله في شيخ بندا يالله وآخر النبي المصطفى كرما درن بيادم سسين كيالله وصل النبي تسليم علي به وروي رواد ريحان يالله دبل المغلى بيان ديلو شيء جدكو من السماوات للأدين يالله ba bët setee eh, eh, sadaqa sidiq moo jëkk a gëm rañaan ma lu mbax mu dëggal loola yàllaw wakka sabaru xuraysin ak bon kaabo jëlinta lu wax mu weddi loola yàllaw ñu réer ñaan ak aboo jahlin di weddi ba tey ñu baax ñaan ak abi bikrin ba yàllaw lislaam teral na abi bikrin teral na homar طوبى فطوبى لنا يا الله يا الله كيف ذكرنا بو جهل تكن بقبب ويل فويل له يا الله يا الله keroog la diinu ibnu lasham ab jabar la buwéy da koo jabar def ko ci fas bi na yàllaw ci biir sarwaan la tabal fas ga doon ko caaw doj boole koo kawarak yonen ba yàllaw yonen ba mel ni ku dof kem fukki weer layu mat ak wenn weer lii la mawlid wa wayalaw way xili xaala ya ñang naa kem ñeneen fukki fan ñaa naa juróom benn weer mooy ndof wayalaw jibrilu ñoo wàccaand fukki laaya yu mat ak benn mooy fallaxin wa naasi yalaw yéefar ya naa Mustafa kay dof na kenn du ko faj xëlliw yaay dara moo gis mbir ma yalaw yëfër ya doon wax ne yoon dof na daal di torox ñi jàng wa naj fi islaami yàlla ma dala saayi bu ku moo leen tëral wa ma habibi bi majnuunin fa yàlla ku àndul ak mooy dof te kenn du ko faj day say ba far daam kàmbag naar ya yàlla ca moom ak la rasulullaahi daal di taxaw di woote woote bu wér li diine yàllaw ca moomaat la rasulullahi daldi taxaw di woote woote bu wér li diine yàllaw xanna saaba ya ñi wër yéemu mépp di wax di dem ca xew ya di waat mbooloo ya yàllaw ca moomaat la ko lan saa topp bu wér lu mat juróom benn faris dem na lu mat fukk ñaar taxaw jaayante jébbulu bar diggante xasraja ak waalaw si yàlla sax dum habasatin moo jëkk jébbulu bar ak ñaaru mag ñu jigéen fii law si yàlla abo amaamata asat te caraas mu ak rafaahatoog xawfin ak xafraa u yàlla kere la yónneen ba yónnee makka ngir nañu gëm nañ dikk jébbulu mbaa muy forcé yàlla Saadu Seydou waa Abdoulaye Masabu ñoo jëkk a woote jeeg njëbal fa yàllaaw keroog la saaba ya booloo jëkk julli bu wér julli jumaa Masabay seen njiit fa yàllaaw seytaane mer na keroog ba jooy na xàcc di xul di yedd mbooloom ngir seen gëm ga yàllaaw waa tarit na dar yàlla Mustafa karaman دهرن دارجن سسين منك يا الله وسلم علي بي وغفير بريان يا الله دجلال ما وغلا أتم قاد يا ما جخو آجر جل جل جل xarabaax ya yàllaawo dëggalal ma wax laatam gàddaay ja la ca xew ak jël ji jël ji ja xarabaax ya yàllaawo giru Quraysh dañoo booloo na rey ko bu wér mbaate ñu génn ko muy dem faw wayalaw bésul keroog la aboo jalin di ñaaxi bana kuréy muhammadu am la tey wayalaw bésul keroog naka ñëw seytaane soppi ku nit di leen fexeel xay réewam nag de yalaw keroog la yàlla yebal jibiil jox ko ndigal wasal fa ay laaya jox yonam ba yalaw taay way cam kuroo ñoo wax ko lépp lu xew bur yàlla faf na ko gàddaayal fa yàlla bésub keroog la rasulullaahi daldi laxas ilal madinati jertal makka yàlla mu woolu xaliyu jamaaram dinaa ko tëddal ci néeg bi maa ngi rañaan dem tay ba yàlla xaliyu ay dara jamaaram di tëdd bu jag calal ba tey way rasulullaahi yàlla نعم يا جو كرجت مصطفى نملس فبسو سلخ لين نروي يا يلا بكين يا لس بابا سجين ون يما يلا هو يلا لي من جبر قول لك يم خم اي خيرم دني من خربا قتم دني من لي رونا يلا سيدان دون ابو جان ترغ نبروس سينكوت يقونا سنبر لينا يلا saytaane daw na aboo jahlin coronavirus seen koote yàqu na sumbalu wéy na yalaw wa makaroo wa makarallaahu kariimun am seen file na ci seen kaw wóor na yalaw wa makaroo wa makarallaahu kariimun am seen file na ci seen kaw wóor na yalaw yónneen ba ànd ak Abubakar ñu yokku ci njël dem xaar yendoo nelaw tey sant yàlla yéefare jóg joxe ñu tànkam te naa ku ko am lii ki laa am laa mbaa nga yàlla nañ fa kem ñetti fan xam ne kenn yëgu yàlla ak ñetti nit foofee fa fa fan ñoo xam ne kenn yëgu leen lu yàlla ñetti nit foofee fa yàlla asmaa doomi abi bikin dadaa defu ñam di topp guddi di yëg baayam fayalaw waamilun tekki abdullahi daa nañu dem kii day xibaar yor naanam gayalaw xar baaxe feeñ ca coroo kunte mapp na xel kii mu gisaati rasulullahi garab gu dal di def meññet te law ne tërës petax ma tàggi ca dal cey nen fayalaw جردون جلدو كمام داي مصطفى ريدر خدا خمم نای خرم ليور نای الله سنو ماما وزنو انكبوت يالا خير بيتي لا جل قردو يالا واتارت نادري المصطفى كرم بألف ششي ينا منك يا الله وعترت ما بري المصطفى كرم دراني في ششي ينا منك يا الله ما عليه به ولا حبيب ويهاني يا الله دل بغلاد اصل اليوم كبير ما خم كمولد المصطفى مغدار يا الله kera ba yónneen rañaane xaaru bay bëgg a dem ilal madinati ke gental makka ya law kera ba yónneen rañaane xaaru bay bëgg a dem ilal madinati gental makka ya law keroog la kuntee ma jooy ba ñëpp dégg mu naa yaa Mustafa yaa Rasulullahi ya law موارجلم غفرو وخم ندب نسرو سول سيري وير نفرو يا الله يا الله نانن جلم غنيون ا جدا امم لا ورون نانا ما داو ما قصوا يا الله هيت ناغل ين هم تبن كو جيسول دلك دنانكم بين فادو يا أبو بكر والقليم يبلم لجزو نعم بطي تيم رمال بايا الله كرو سرا قدم هولن جت لين وغيو سو دالي كوي مرد موك جاجير جايلو مغنا لمانو لمانو مستوى يرمل بلاي بيوتو مغار الفو ويلو سو دالي كوي دقمي جابل دير عبد الله بن كرم يفر دوغ مو لو فاو ويلو بسب كرو كوم داجل دو دبل سولو باتاي تدوكو سورو تي موك سانتم بايلو بسوب جرا كنت جاند هذا الرسول بتي كبرك سورة ما سنتم بيلاو بمستضع وجه خيم أم مهبدي إن نيوب بك مدم مرزولا يلاو بمستضع وجه خيم أم مهبدي إن نيوب بك مدم مرزولا يلاو مدالي فيلاج نصوب ak luñ defar ci ndawal ngir bëgg a jënd ñu naa xamtil fa yàlla mu far ne leen yeewu yéen ab gàtt yét ma bu wow bu muslaam soow ma jooxal soow ma yàlla ñu yët ko soow ma yàlla ñu ratt ba naan ba desal da bi yépp fengat li léeg ci bari de tubran siibin dal jébbulu far nasuruga ànd ak juróom ñaar fukk yàlla yennan ba dal di ànd ak jébbulu ñu daldi di yendal xubaa muy jàkka yàlla bés fukk ñaar bu diglis nay lañ fa taxaw ci weeru gàmmu la mawlid wax ba yàlla sànq fa kem fukki fan ñaanaa mutul fukki fan ay wut am na ci bis weer wa yàlla foofee la jëkk julee tey xutba ñëpp taxaw julli jumaa lii la mawlid waaw waaye law asma u doomi bikirin ja nekk fa kër zubayru jur na keroog gadaay ga yàllaw moo jëkk juddu xubaa gadaay ga moo di lëlëm ñu daldi koy tudde abdullahi yàllaw la war sunda ma waa tey ba ñëpp taxaw mbooloo ma sënku leer yay jolli yàllaw si ndomal waa tey ba ñëpp a taxaw mbooloo ma sënk goleet gay jol li yàlla muhaajiriina ak lansaare ñëpp di way naa maraban yaa rasuulullaah yàlla keroog jigéenu bànni na jaar dañoo dajaloo ut ay ndëndëg tabalaat ay xiim fa yàlla digindi teru rasuulullaahi ñëpp di way yaa habasa habasa min jaayin allah ku nekk naa sama kër lay jaay maa gën a yey ci gan gu toll ni rasulullahi yàllaw yónnee na leen bu fi kenn soowoo na ñëpp weddam gëleen di jibril la bi yàllaw soowoo na ñëpp weddam gëleen di jibril la wa ma nos bi yàllaw fu mbir na ngeen xam ne foofee mooy barab bi ma jëm mu yës soomaat bat ba fii tàndar ma yàllaw njool makka wàcc leen fii mooy barab bi ma jëm ñu ko pàkkam ba mooy jàkkam ja yàlla njool makka wàcc leen fii mooy barab bi ma jëm ñu jaay ko pàkkam mooy jàkkam ja yàlla fukki dinaar yu mat ak la daal dina jas ci yóbbala Baabakar jox réew ma mu jënd kenn ba fa nekkoon biiru raxmata mooy kenn bi awat ba ko doon njublang wa moom it keroog fukki junne ñaar la daldi na jas ci yóbbalub Seydina Usmaan yàlla mu daldi dal kër bi yayoo ba daldi tabax jàkkay Madinatu ñëpp yi sant yàlla tabax ga ca fukki weer ak ñaar la li wax su gàmm lañ fondu man jàkkaam ja la lii la wax su lañ fondu ba bëccëg la ma soñ yooyu boole leen ba déwén mu jóg di jiw gàmmoo lañ àggal fa yàlla keroog loo njool maa këdd këgu wa ma di na ba dey maa ya kë ci yëre di jëm madina yàlla barke borom Tuuba akarin hadar yal mustafa karaman daran daar fi sasi yimminta yàlla waatarin hadar yal mustafa karaman daran daar fi sasi minka yàlla wasalli nabi dasli bin alaybi warawi ro bi rayani yàlla déglul ma wax la na binda Mustafa mela bam tudd gën ji gën ñëpp yëlëw déglul ma wax la na binda Mustafa mela bam tudd gën ji gën ñëpp yëlëw xat kaanaag malahum xalxan wa aj malahum xulxan wa asdaxahum xawlan fa yëlëw jikkoom ya ñoo meloom yaa sell cër ya rafet ciy mustafaal mujtabaal muxtaar ya yàllaw bu yàlla dee sakkuloon misloom ca gaaya weyun te dootu sakkati misloom wóor na yàllaw gàttul guddul xeesuloon ñuulul yaram a tax cëram ya mat sëkk buy dox su la yàllaw moom daa ma wul defuloon nam njool reyul na fa doogul wagul seddagul segul bayalaw réggul asul noojuloon gànkul te yelle sewul këlër ya papaayewul moo jandi yalaw moo jëkkab taxawaay day kem ñenan du xasab réem di neex njamal yalaam la yalaw moo jëkkab taxawaay day kem ñenan du ne jaat njamal yàllaam la yàllaawo ak jaalu yàlla wa ak siiña mu ñuul ma ko dar ak tuñu jekk ak mu ñaay ba mu ñaay ba day saf ne bi gëb ci xiinu marax réem ga gàcceel lampam gaaseelaw jéem woon neelu bay salbeeru badriya din loxom bañ a maag baatam ga yéena mi sëq yi ànd ak melax nga xam yu rattaxi ak leeraay bàyyalaw boppam bu mërgalu baat noppam yu rëy yëcca sax bedam ja muy wal ba teeg lamsal bàyyalaw noora bakkan nga ne foni sam ne taali wuruf sikkim bu jekk ba ak faasam bàyyalaw diggante yaari rakam yaar xaatimam ba daw ca diggi dokku ga mooy saf tam bàyyalaw suufam yi jag jag jangam yaak yaak dajar yu tal yaak kelooram yooya yallaaw suufam yi jekk ya ak jangam yaak yaak dajar yu tal yaak kelooram yooya yallaaw doxin wu jekk wa ak ndaagam la temp ma wam doxin wu rabutu lay dox bir na yallaaw waxin wu dogoog baata bu neex ba mu yor làmmiñ wu gàtt wa ak càlleem gayalaw léebul barul dotumul nasul derul taqulam baatam laxul siwulam señul fayalaw léebul barul dotumul nasul derul taqulam baatam laxul siwulam señul fayalaw ndigam lu jekk la cey ndigal tamaam la mu yor pam yi jekk ya ak beeram loxo mi jekke ak waaraami sewe ca sax yee mu xox buy koy lewi yàllaw moo neexu ban ku nu yoog yonne ndigay baalëg day saafanteeka jamanteeka yàllaw ku mu raay sa boppoo nga a ndax bar man a jëm ku mu daaw li ñaanal la doo doo joote salaawo ku mu raay sa bopp nga jëm ku mu daaw li ñaanal la doo doo joote وأتر الندل المستضعف كرما دار دار في سسير من يا الله النبي بتسليم علي بي ونوير بريان يا الله موقنك أيكوك يا خمتوت لبدي كاي صلاة يا مولد وقال الله قد كان يوم مكة sallallahu laa ko salaatin sallama laaw kersaa ki te la lamboowoon te nooy te déet te foog te jàmbaar te lamboow fulla ya laaw kersaa ki teggin la lamboowoon te nooy te dëgër te foog te jàmbaar te lamboow fulla ya laaw dadaa toroxlu di gaar dalam bi dégg ko jam di ya, gaar malaane ya. di sol yi ñu da ba da da torox la di gaar dalam te dégg ko jam di gaar malaane ya, di sol yi ñu da ba yalla di rat gatam ya ànd ak sa vieille fegi de di yewi naagaam di fek baxlaam ya yalla di war ca baxla ya ak naagaam da na dal di war ci baam ya 别的人家要老。